bismillah rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu fas yéene ñëwaat ci mille neuf cent cinquante deux ci ndimbal borom bi subhaanahu wa taala di rafetlu ànd gi ci tasaare keeg euh, contribution yi ak mottali gi bu baax a baax a baax a baax démb ñëwoon nañ ba ci ñeenti noonu yi nga xam ni moo moom la nit ne ci digg ñeenti noonu yooyu ñu wër ko noonu bu ne yor ngànnaayam jëm si ci moom waaye moom mu am moyen ngir euh, damm ngànnaay yooyu ba pare tëj la ci kaso bi foofu lañ toll démb waaye mbokk mi nee na lan mooy pexe comme fii la jamono toll léegi mooy réew mi foo dem def nañu ñaari parti ñii ànd ak ñii ñii ànd ak ñaa ci fépp nag këru diine yeeg fépp fu ci nekk am na fa yow jikko yàqoon yi noonu ci danger léegi senegal soppiku na dañuy kar nit léegi di ko dóor bal dañuy def nangam dañuy def nangam léegi nag li benn mbokk wax rek euh, ni xanaa ñu delloowaat euh, ca démb mooy jëkkante xale yi jëkk leen jàngal alquranul karim buñ ci yam de waaye jàngal leen xam-xam bii tax ñu dégg alquranul karim waaye buñ ci yam de waaye nañ leen jar ci diine suñ aado yi rafet yooyu ndax euh, wax jii day dëppoog waxu imam malik jam waxoon ci bu jamono yàqoo euh, fekk ay jullit lañu kay dañuy dëppaat rek démb la defaran yéefar yi bañ nekk jullit yor ay jikko yu baax nekk ay royukaay ci saxaaba yi ba ci ñi ñi ñi ci topp dañuy delloosiwaat loolu rek waaye xam nga lii tax duñ ko mën a delloosiwaat cent pour cent ni ñu ko bëggee mooy ñeenti noonu yii nga xam ni fi lañ jamono démb ndax noon yi danoo gis ni fi toll nii euh, dañu noo gañe lool te du benn noonu booy mën a teg bët ni mi ngi nii won ko xale bi ne ko kii mooy sa noon pour boo màggee loolu moo tax mu garaaw lool waaye gis nga li li tax ñeenti noonu yi gañanu te noonu yi mooy sa bakkan bi ak àdduna mi la gaw iblis mi nekkoon sa noon ca aadama ba léegi eh, sa sa bànneex bii nga xam ni di def loo xam ne tegoo ko fenn fu dul daal da koo def rek ngir neex na la kese waaye yaa gën a xam ne lii muy yàlla la yaa gën a xam ni lii lu ñu tere la yaa gën a xam ne lii jaaduwul jékkul rafetul ci diine ci ngor waaye bànneex du la ëpp doole loolu nag bu amee fokk buy àdduna jaxasoo nii euh, ku yow sa ngëm yàlla des na walla sam xel des na waaye am ngëm yàlla ak xel mu mat fi jamono toll nii nga dib sénégalais yëg li xew nii xaw ma nag ku ko yëgul jàpp naa ni ñu ëpp sénégalais yi yëg nañ ni sénégal ak si na fu must ak si ci jëm ci fu bon jëm ci fu bon te fu nar yaatu lay doon nag fu yaatu ndax am na foo xam ne bu ci tàmbalee rek Ah, bopp moom tawat moom bu tàmbalee ci bopp rek aha boroom léegi xel ma daal di dem léegi dutu bokk dutu bokk ndax bopp moom boo ko daggee rek nit ki faat loxo mën naa dagg tànk mën naa dagg nopp mën naa dagg nangam nangam nangam nangam waaye am maa nag bopp moom faatu rek waaw mbokk mi ni xiif bu yàgg bi ñu ni xiif mooy mën a tàggat bakkan kon ngànnaayam mooy boo ko reggalee jox nga ko ngànnaay li kon yaa ko jox ngànnaay li kon yaa ko koy xañ mooy na xool di lekk lekk gu bokk sañu lay tere booy dog lekk ba du duutoo man dara yow li ngay gën a préféré ci guddi gi mooy tëdd ndax lan yaram wi diis na léegi ruuh ga nag ma nga woyof tooy tooy tooy tooy tooy eh, ndax bakkan wax nañ bi ko suñu borom bindee subhaanahu wa da koo eh, xool bakkan am ay jàngoro lool suñu borom ni ko yow bakkan yoway kan ak man maay kan munu ko ah, man maay man yow yoway yow ah sa borom bind la laaj la doo ko wax ne yaay sama borom bakkan ni ko yow daal yow ay man maay man ñu dugal ko ci sawara juróom-ñaari fan génne ko mu waxaat loola dugal ko ca juróom-ñaari at génne ko mu waxaat loolu ñu ni sunu borom daal di joxe ndigal ñu daal koy xiifloo juróom-ñaari fan rek rek daal di koy woo ni ko yow bakkan yow yaakaar mun ko yow yow yàlla borom bu tedd bi sàkke yow nag mun ko man maay sa jaam gu torox bu ñàkk fayda bi bu ñàkk solo bi ah boobu kon eh, xese bii eh, bi ñu ko nettalee ñi ngi ñu ni kon bakkan li koy mën a yar mooy di ko xiifal mooy tax du am doole day màmm de day màmm am ngeen fas wu ñu wudd génne ko bu ñu ko jëkkee génne yenn fas yi gone du ko mën a téye ndax euh, wudd biñ ko wuddan rek muy lekk ñu koy sang di ko di ko di ko suqi waaw te saa yu bakkan suuree ba regg ruu moom xiif na tilim na ala kulli di kon kon boo defee jaareeg moom foofu rek di nga mën a nag am chance ba bakkan bi day mujj nekk nafsul mutmaina nekk nafsu raadiya waaw bakkan bu dal am équilibre bakkan bu bu bu ñu gërëm ni mel dem ba yàgg bakkan bi sax gërëm sax waaw nga am su kaamel muy bakkan bu man sëkk nag ci ab jullit waaw boo gisee tasawuf gën a góorgóorlu ci yar bàyyi ci xel lool lool ba lépp ñëw ci defar jikko mooy noon yi lañu bëgg a fexe yow ba nga nangu seen ngànnaay yi rek su ko defee boo ko nangoo rek tëj ko ci kaso bi benn boo ci échappé nag beneen baraw na la mënoo ko tëj ci kaso bi mukk mukk mukk te nanguwoo ngànnaay li ndax xaju ci ci biir kaso bi moo ngànnaay li dañ ci xajul ci xajul waaw te ngànnaay loolu mooy tax du mu lay xaj nga topp yàlla subhaanahu wa taala après gaay day tax doo mën a topp yàlla

fa al muxaalatatu fi xayri yufid maanaam jaxasoog waa àdduna soo ko defee jox nga àdduna ngànnaayam kontaan na ngànnaay lim lay alage ngànnaay lim lay trompe ay koo xam ni àdduna kese kese kese moo tax mu ni simpeet doom jii doon jàng alxuraan xel mi neex lool ba ki koy jàngal am ci moom yaakaar nga xam ni kii incha allah buñ koy bàyyi muy mokkal Euh, ndey ja wala baay bi ni ko simpeet daat koy jëbbal école nasaraan bi mu fay jàng nasaraan kese kese kese mu ngay ñaan doom ji yàlla na yàgg ba nekk yàlla na jàng ba nekk ministre yàlla na jàng ba nekk ab président yàlla na jàng ba nekk ab nangam waaw bu ko ci amul nag yi yi nga wax ni bu ko ci amul nag waaw waaw àq ji nga ko amee lan nag mu war na jàng xam diineem loolu lañuy laaj yow mal xi am boole génn ndax doom ji jàngal nga ko ju góor gi jigéen ji ba mu xam diineem sa jabar ji bi ñu la ko joxee ndax vérifié nga ba xam xam na diineem kii ñu la jox euh, doonte léegi dégg ñu naa diw dañ koo may diw waaye dañ daa joxe rek diw dañ koo joxe ci béréb sàngam dañ ko yarluwaan nàngam ndax yow góorgóorlu nga ci xam diineem waaye mal asaf bu fekkee xamoo sa diine nag loolu noo koy defee kon àdduna moom mu tax nga simpi xale bi foofu xam nga léegi dañuy léemu xale yi maa ngi ko dégg sama benn mbokku njaañeen démb ci waa njaañ yi ñu saaliw ak suñ cuun ñoom ñëpp leen di gërëm bu baax ci suñ bis bi ñu amoon fii ci kër suñ tubaak gi ci Fass Mbao euh, mu ni léegi dañuy léemu xale yi wax na dëgg am na ñetti at tàmbalee bëgg a mën a wax nga yóbbu ca daara ji seet mën na fa am ñaari at du mën a fari ji ndax tuuti xel mi fu mu toog nelaw fa wala mu tuur ndox waaye cey bu ma ne jàng euh, ABC nga ni ko panget fekk tàmbale na ubbeeku mu ngi tàmbale naa fari ji ngi jël xët jëlal jot na danga ko doon léemu fële rek danga ko doon léemu ci ci ci daara ji rek waaw adduna moom mu euh, mooy tax ngay ngay ngay euh, sàkk loo xam ni jaral na la sa bakkan des ci waaye nanga ko am rek ndax bëgg ngaa tekki te tekki moom mooy noo amee xaalis rek baax na ñoo amee xaalis baax na waaw bëgg nga am ci nangam yi bëgg nga am ci nangam yi bëgg nga am ci nangam yi waaye bëggoo mel nangam bëggoo mel nangam loolu moom jëralu la mel ni diw mel ni diw mel ni diw déedéet kooku jëralu la lii ñu gis muy matériel muy àdduna kay waaw kay loolu moo la jaral jaar foo xam ne daanaka xaru la ngir am alal ñooñu nag noonu kay foofu la tàmbalee foofu la yem foofu la tàmbalee foofu la waaw kon sa bakkan bi nga xam ni jikko yi ngis tal loo def wéet di nga fexe nit ñi dégg ko bu ko ñenn déggeet buñ ko wax faneen mu neex la lool bu ñu tudd ñi ñi jëf te tudd ñu la mu naqari la bëgg ñu tudd la fooy toogit bëgg a feeñ masalan Eh, noon yi buñ la jekkoo defo yi day bari lool lool ci sama classe bi defo suñu defo yu bari yi noon yi ñoo nu jekkul nu jekku de def ngi yàlla kese bëggu kenn dégg ko ah, mën a gun ko de mën ko de mooy danoo wéragul rek kon eh, da ngay fexe ba ndégg tal ak ngis tal ak yooyu yëpp yemale ki ki la yëkkati ki la yëkkatiwul ki jox cër ak ki ko joxul yow daal kenn ku ci nekk defal lawar ci moom te bul xaar mu def ci yow dara noonu lañuy ñuy jàngale waaw seytaane nag moom ginnaaw àdduna moom jaxasoo ak waa àdduna mooy jox ko ku ngànnaay waaye nga beru waa àdduna bañ a jaxasoo ak ñoom mooy tëj nga ko ci kaso bi seytaane neen moom ci lu amul benn sikk sàkk mooy tudd yàlla ñu mooy yow tëj nga ko ci kaso fan la lay mën a jaar ñàkk gaa tudd nag wala sa sàggan mooy jox nga ko ngànnaay gis koo xam ne wax dëgg yàlla lim xam ci àdduna waaye wax dëgg dëgg yàlla julli sax julli gu baax mënu ko su ko mënee xamu ko xamu ko xamul julli gii ci farata ak yi jër sujjóot ak ak buñ ko rawee ci jàkka buy dabe sax day juum ca na muy def bu ne nu gis ko waaw yëgul ni lii muy def nii bàkkaar la boo xam ne bu ko faatuwaalee mën na koo tàbbal sawara ah yow nga tuur ndox ah, ndox mi nga war a bàyyi ba mu jeex nga jóg nga jóg noonu ah, sol sa tubéy doonte sax Eh, laal nga ndox ba nga jógee waaye am na leneen lu génnaat loo xam da ngaa loolu mën laa yóbbu sawara ah waaye sàggana sàggana ba dara dara dara dara xamoo ko ci sa diine daanaka ci àdduna nag moom loo ci lu la ci ump di nga jóg jéem koo xam bu baax kon seytaane moom boo dee tudd yàlla boo dee dem jàkk boo dee jàng alxuraan fan la lay jaar fan la lay jaar mbokk yi nañuy dem di julli julli mbooloo day dox sa diggante ak iblis jàkka jàng alxuraan noonu alxuraan day ko diglu boo ko mënta jàng alxuraan del dimbali del del jëfal du ma wax dimbali sa bopp ngay dimbali del jëfal ñi koy jàng ak di ko jàngale su ñaq wii dee ci jox waa alxuraan alxuraan nee na ñoom yàlla nee na gaay alxuraan ñooy samay gaay ñoom ñoo jagoo yàlla waayoo leen ahlul quraan ahlullahi wa qaasatu aw kama xaal kon àdduna moom danga koy danga koy danga koy danga koy danga koy foñ nekk ci biir fexe ba tabax ci sa ëllëg fexe ba ni ngay dunde tey jii mun loolu dund gu tegu ci ni ab julit war a dunde kon adduna lu am solo la ci wàllu googu ndax ci ngay tabaxee ëllëg fa nga jëm ëllëg dangay ngay li ngay def lépp di ko am waaye mu xaar la muy ay jëf yu baax rek ñu kon bànneex mii nag nga xam ni moom moom wax ju bari wax ju bari mooy jox nga ngànnaay bànneexam am na li mu bëgg kon koy noppi moom mooy kaso bi nga koy tëj arab bi dañuy wax ni ah, su wax nekkee xaalis bii de te xaalisu gal booy takk noppi kon moom wurus la moom jamaa la moom waaw law kaana al kalaamu fiddatan la kaana sukkutu zaaban waaw lislaam ne dañuy gis nit ku dugg ci sawara di dem di tàbbi ndax xóotaay lu ma juróom-ñaar fukki nawet mu am ko ci yoon wi subhaanallah ndax lan nee na benn baat bu mu wax benn baat bu mu wax fii ne nag man dama tiit dangay dem ci ay groupe ay boroomi xam-xam ay imam am ñu jël ay position di wax loo xam ne kañuy waxal lañ koy waxal yàlla xam ne ni musuñu ko teg bët lu ay noon wax ñuy gis ko ci internet bi jël ko léegi nag def loolu débat cher ay imam xam naa kon denc ñëwaat waxtu jot na rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah